مد لنا الإسلام والكفر معا وبنشيئتي لكل شما يقود بي شاعر والباطن من أتاه لله في كل شمل Seex li waral jataay bi lenn la Tuubaa ci kanam dafa ñëw bokk ci njëfandukaayu Serigne Touba yi nga xam ne daf na koo bataleel mu dil nu mbalaan mi bu ko bët xoolee dana ko gis waaye bu ko loxo làmbee daj ko sunu jàmbaar ji te nu am yaakaar ci moom démb laata lii di ñëw ci moom muy Serigne Abibou Mbacké ndax xam a jikkoom te jikko doon lu am solo ci doomu aadama ak ak bëggam lii fi xaw ci nawetab ren nga xam ne ndox mi nga xam ne dogalu suñ borom la ndax yàlla moo wàcce ndox mi ci kaw wàcce ko ci suuf fu ko neex mu jëmale ko fa nun ñii dëkke Ngiraaneen nag ak ku fi dëkk wut tam ndox moom li mu fi dox ci dëkk bi kenn ko ne gis nga ko kon suñ ciy wax liñ ciy wax day nekk dëgg rek fii fi Ngiraaneen nag mel ni ndox mi kenn ëpp léwu ci woon li tax kenn ëppalewu leen ci itam ñëpp gis nañ ndox mi ñëw nañ seet ko sëriñ Abib mi nga xam ne daa jiite Touba ci kanam ak ñi ma àndal ñëpp nun de amal na leen ak cant ndax sëriñ Abib dafa doon ñëw guddi di fi ñëw bëccëg di xool ndox mi nan la ko war a mën a jekkoo ba ndox mi génn ñëw na fi ñaari yoon itam force bu njëkk bi itam da koo song bëggan fee jëlee lépp bi mu dawalee sama borom sotti waat ci ndox mu toll na mi fi nekkoon mu dem dàllu ba mu ca jógee mu ne ngiraane li ko wër de ak ñi ndox mi génnee tuubaa ci kanam li leen sëriñ bi jox ak fi ñu war a taxawoo dëkk bi kon jaat na ci ñoom ñu dem ci ñore social ci tuubaa ci kanam dimbali leen ci wàllu wërsëg ndax nit ki kat fekkee daa génn këram amut fenn fu mu jëm lu dul fa mu jëm dañ ko koo abal rekk nam fa nekkee nekkeen waxee na mën na am mu neex mën naa am mu naqari kon ñooña am na ñu lees leen war a mën a jàppale ci wàllu alal ñu baagu waataat sëñ abi bu ñëwaat xoolaat ndox mi xam ne moom li fonction yi mu doon liggéey ci biir dëkk bi di ko liggéey sëñ tubaa yépp daa war a taxaw ba ndox mi génn tubaa mu daal di waataat jël ay kabiyon yoo xamante ne ni camions yi lim yi bari na mën mëni su koo wax ndax man dama koo xamut te duma wax lu ma xamut ñu songaat ndox mi mang mboolem luy mbedd yi mang mboolem luy kër yi rambale ko ba kenn ku nekk mën a delluwaat sa kër te ñun jàppoon nañ ne ñun waa Ngiraaneen moom atum ren moom du nu dëkkewaat sunu quartier moom loolu lan lu ñu ngi nii duñ ma bàyyi may wax lu ma xamut kon ku def loolu wax dëgg yàlla boo nee Touba ca kanam nga jiite. kon la nga jiite ñëpp war nañ la koo mën a gëmal sëriñ bi jàmbaar la mu ngi liggéeyal maamam waaye ñi mu àndal ci Touba ci kanam ñoom góor ak jigéen ñëpp di jàmbaar. Touba ci kanam nag effort boobu mu def ñun ñin ko defal noo ko war a wax nag ba dëkk bi dégg ko ku ci bokkoon àdduna bépp xam ne Touba ci kanam alal jiñ koy jox yàqu ko mi ngi koy delloo ci sëñ Touba mi taxan mu doon ko laaj mbooloo mu mel noonu nag. buñ jógee liggéeyal sëñ tubaa te am ci ndigalal sëñ tubaa nag kon àddina bépp dañoo war a xam ne tubaa ci kanam benn force la boo xee ci yoonu murit ñëpp a ci war a jàpp jàppuk saayir ak jàppu baatin. tubaa ci kanam dafa mel ne euh, tubaa ci kanam dafa mel ne liggéey bii ñu doon def am gi mu am solo am na ñoo xam sax umb na leen waaw ndax dama euh, jël la sax jële gin fi jëlee ndox mi ndox mi moo na fee jógee sax te kenn du fi mën a jaar. waaye machine bi ñu indi gratte mbedd yi ba ndox mi bis bi ñu fi jugee rek kesu bëgg nga mën a jàll dem sa yoon te kër gu ñu dugg dañuy jël ndox mi ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk dañooy dugg seen bopp ci biir. li ma ci gën a neex mooy mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom ku ci mel ne euh, Baye Sini Gaye ak Cheikh Modou Lamine Bara euh, ñoom ñëpp bu ñu ñëwee fii dañ lay jàngalaat sax ab yar jàngalaat la ay teggin wanaat la niñ mën a jaxasoo ak doomu adama yi. te ñoom lañ féetali woon gox bi tey ñu sonn ci lool mu mel ne kon ginnaaw loolu sëñ Mourtala Mbacke mu Abdou Fatah mu sëñ Fallu euh, bi mu wootee dañu woon ci koñ bi bind fi bindoon nañ fi lu mat quatre-vingt-cinq personnes yoo xam ne euh, kenn ku nekk jox nañ la cent mille francs muy juróom-ñett fukki nit ak juróom loolu buñ ko xaymaa day mel ne toll na ci huit million cinq juróom-ñetti million ak téeméeri junni day mel ne kon toll na foofu nga xam ne kon ndox mi ñoom liñ ci def kenn mun laa xam toll bis bu njëkk ba indi nañ fi euh, fanweeri oto indi nañ ko fi ba ca topp ñu ne nañ yokkaat oto yi indiwaat fi lu mat euh, ñeent fukki oto ndox mi daal di xaw a dolli ko waat ñu ne nañ bàyyi bu ndox mi eh, wàññi ko ñu ñëwaat bi ñëwaatee nag wax dëgg yàlla liggéey bi sax dañ koo organiser dañuy jël benn wedd ba mu jeex rek ñu jël bi ci des waaye ci biir loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ndax moo naa taxawee neen waaye nag ñuy soññewaat ndax la ko fi indi woon ba tey saafara gut ndox mi eh, dañ ko vidé rek mu dem waaye nag fam doon jaar di ñëw saafara gut ba tey bu tawaatee mën na faa jaaraat ñëwaat te loolu day nekkaa beneen liggéey kon ñuy soññewaat ci rek bu fekkente ne mën nañoo xool moo xam fan lay mën a jaar ak ñan ñoo koy mën a def ba loolu saafaraw ñu dimbalee ñu loolu rek ngir saafaraal ñu fii nga xam ne fa lay jaar di ñëw te it ku ñëw da nga ko gis. mu mel ni sëñ Maam moor Mbacke mu sëñ Mourtada moom la ñu waroon a jiital sax ci liggéey bi dawal na otoom ñëw ba egsi fi dawal na otoom ñëw ba egsi fi ne ma incha allahu rabbi luñ ci man danañ ko def kon taxawaayam ak ñaan yi lépp moom it egsi na kon dafay mel ni kon Baye Aliou yéen yéen a baax rek jiital ñu ba lii mën a am waaye sant nañ ci góor sant ci jigéen Touba Ca am nag oto yi mu doon jël par jour benn oto bu ne rek lañ ko fay ci xaalis su lu doon lim bi tiit ak lañ ko solal ci gasoil benn oto oto bu nekk dana ñëw def fukki voyage ak ñaar la ñuy def par jour biñ fi mujjee rek fanweeri oto yi doon ñëw oto bu nekk dana def fukki voyage ak ñaar mbedd bu ñu song ba mu jeex rek ñu jël beneen mbedd. kon mu mel ne fii ñuy waxee nii nga xam ne moom mooy sëñ Mouhamadou Ndiaye Ngidane mel ne ne bi mbir mi xewee jëloon na ay nit ñu bëree bëree bëree bëri dalal leen ci këram gi. di leen yor guddi ak bëccëg wax dëgg yàlla moom it amee nañ ko ak cant bu baax ak ay ngërëm te di ko ñaanal it suñ borom guddal fan wi wéral cër yi ak mboolem kuy dégg suñu kàddu ak mboolem ku fi teew wasalaamaaleykum. ñu ngi jiital ci cant gi nag Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba ndax liggéey bii de ndox mi de bañ ci jotee moom de moo fi njëkk a dugal ndimbalam wax dëgg yàlla. biñ ci noppee lool ñu teg ci sëñ Maam Mor Mbàkke moo sëñ Murtala dikk na fii de taxaw ñaanal ñu nañu mbir mi metti na waaye nag na ngeen ko bàyyi ci loxo suñu borom am na ñoo xam ne ña ngi seeni étage yéeguñ taw bi de waaye buñ jotoon ci li ngeen dodde da ngeen sant yéen yàlla loolu itam wax dëgg yàlla gis nañ ko sant nañ bu baax a baax bañ fa daataa jógee sëñ Abib Mbàkke ñëw fi ànd ak délégation bu mag daal nañu waaye lii metti na di waaye bu soobee yàlla balañ leen a bàyyi bala ñoo tàggoo yéen daañ leen ko ngàncal ba mu jeex ñu ñu ñu leen ko ñu sëkkal leen ko loolu itam wax dëgg yàlla ñu def seen kem kàttan nekk ci nekk ci nekk ci ba màggal gi di ñëw ñu bàyyi ko fi ndox xam ne loolu mënu ko fee jële ñu bàyyi bi ndox mi wàññi ñu dikkaat jëlee fi ndox mi ba mu set becc ñu maase leen ñu mbedd yi ni ngeen ni ngeen ko gisee nii. loolu yëpp ñu ngi ci sant bu baax a baax di sant Touba ca kanam ba pare dolli ci ay ndimbal yoo xam ne kenn ku nekk dañ dañ laa dañ laa woo ci sa téléphone ne na nga ñëw ci kër Sëñ Touba ga ba nga ñëwee ndimbal ya mboolam ku ca bokkoon ku ne rek jot nga sa ndimbal ba ca jotee sant nga bu baax a baax kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn daal. di am mbégte bu baax a baax ci jotaay bii nga xam ne jotaayu cant la jotaay delloo njukkal la ñaal mbooloo ñi nga xam ne mbooloom sëriñ Touba la di tuubaa ca kanam Touba ca kanam nag. Euh, seen taxawaay ci ndox mi doon taxawaay boo xam ne bu sedd xol la moo waral sunu jotaay bii ndax ndox mi nga xam ne moo agsi woon fii ci Ngiraaneen ñu bari jàppoon nan ne nawetub déwén dina ko fi fekkaat ba ci man mii jàppoon naa ne euh, ndox mi dina fi noor waaye ñu def ci yitte ju kawe lu jiitu màggal Tuubaa yi nga xam ne bu fekkoonte ne seen pexe sotti woon na ndox mi du fi màggale ak la muy bari bari ndax li nga xam ne moom lañ fi yónnee woon ci ay camion ñu di ko wiide te Cheikh Ndiaye mii doon ko taxawu lim bu takkoo takku la xam ne bisu set li ñuy am ci ay voyage dana ëpp téeméeri voyage ñu nekk ci ba màggal gi jege si dëkk bi xat mënatuñoo woyal liggéey bi ñu bàyyi noonu bi màggal gi jàllee ba gan ñi delluwaat ñu woyalaat liggéey boobu def ci nag taxawaay ak yitte joo xam ne ju kawe kawe la ba ndox mi tey jii jeex na tàkk fii ci Ngiraaneen ñu boole ci itam yeneen ndimbal yoo xam ne dañ ko jagleel mboolem ñi nga xam ne ndox mi duggoon na ci seeni kër di enveloppe bu am solo boo xam ne ku ci doon ci ñoom jox nañ ko ko mu man ca sukkandiku ci lu baree bari ak donte ndox mi moom yàq na loo xam ne neexut a matal waaye ñoom feeñal feeñal nañ ci seen yéene bu baax a baax ginnaaw bu ci yéeney Seex Muhammadul Muntaxa ak jëfam jiitoo ci biir lool itam lu jiitu ndox mi di ñëw itam indi nañ fi ay làmp yoo xam ne euh, yaakaar naa ne ku ne teg na ci bëtam Euh, nañ ko bëggee woon xëy na matewut noonu ba tax yéen a joojee ñu amoon ñu fas yéene koo mottali ba fan yi am na yeneen làmp yoo xam ne fas yéene nañ ko fee indiwaat. waaw ñëw na sax xëy na monte gi rek moo des kon loolu wax dëgg yàlla lu yayoo ak cant la. ginnaaw loolu itam ñu ngi soññiwaat waa Touba Ngiraneen ci Touba ca kanam ndax liggéey la boo xam ne benn taalibe waru cee yaafus benn taalibe waru cee des ginnaaw benn taalibe waru ko sàggane te yaakaar naa ne li ñuy laaj yomb na lool te itam ñi ngi koy def fuñ xam loolu ñu naan laaj lun man di ko def fuñ xam loolu moom yaakaar naa ne leer na leer na ñëpp weer wu ne ñaat téeméer ba lu waay man yaakaar naa jàppandi na ci bépp taalibe kon nañ ci gën a góor lu baax ak donte ñi ngi ci woon waaye ñoo ngi leen ci soññ bu baax a baax di ko tàmbalee ci sunu bopp ñu xam ne liggéeyal Serigne Touba la te itam képp kuy euh, dàkk ngërëmul sëriñ bi yaakaar naa bu ko diiree foofu dina dajeeg moom kon ñoo ngi leen ciy soññ bu baax ñu gën cee farlu kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal sunu borom gën leen a jëmee ci kanam te sunu borom gën leen a dëgëral te seen liggéey bi seytaane yàlla bu mu ci am aw yoon mukk te lépp yàlla na doon gërëmul sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.